ñu dem ñu ngi nuyu sénégalais yëpp man maa ngi tudd Mamy Tho présidente Wally Family alors tey nag point de presse ñu ngi ko def pour mun a nag waxtaan ak fans Wally yëpp wala ak sénégalais yëpp parce que ku ne naataable wul ne Wally Ballago Seck lépp lu mu wax la woon ak sénégalais yi def nañ ko. vraiment liggéey na liggéey bu mucc ayib ci album international bi war a génn ce 6 octobre 2023 donc nag euh, point de presse bi ñu ngi ko def pour mën leen a wax naka ngeen wax a mën a def ba def seen commande album parce que ñu bëri ñu ngi bëgg a jënd album bi ñu bëri am nañ koppar gi mais xamuñu naka lañ mën a def donc tey dañ leen woowoon fii pour def sensibilisation bi képp kuy bëggee waali képp kuy fans waali naka nga war a mën a def ba wax a mën a jënd def sa précommande bi donc ñi nga xam ne amuñu compte bancaire juste pour vous dire que du ñëpp ñoo wax a am compte bancaire pour mën a def seen précommande album bi mën ngeen dem jënd seen carte prépayée carte prépayée bi ngeen di gis jarul sax ngeen di am compte bancaire soo demee jënd ko da nga ciy chargé li ngay soxla pour mën a def sa commande album bi voilà donc noonu noonu noonu lay demee pour ñi nga xam ne nag euh, ñu ngi bëgg jënd album bi par exemple ñi nga xam ne Facebook la ñu gën a tàmm ñoom mën nañ dem ñi nga xam ne Facebook la ñu gën a nekk à l'aise am na benn post boo xam ne bu ñu duggee ci page Wally Ballago Seck dinañ fa gis benn lien boo xam ne dañ ko épinglé alors ci foofu nag ngeen di cliquer wala bu ngeen fa cliquer nag dina leen moon benn formile bu ngeen di remplir wala sa tour sa sant ak nombre de CD yi nga bëgg parce que nekkul benn CD rek nga am droit jënd mën nga jënd nombre de CD yi nga xam ne soxla nga ko voilà donc nag après nga wax sa adresse bi nga xam ne foofu lañ la ko war a livrer boo cliquer foofu ba pare da ngay daal di valider loolu dong la léegi nag mën nga jënd ci trois étapes comme ni ma leen ko waxee sànq Instagram Facebook wala Snapchat bi voilà bu ngeen demee aussi Instagram waali même chose rek ngeen di def comme ni ma leen ko expliqué foofu tamit di ngeen gis benn lien voilà bu ngeen gisee lien boobu nag da ngeen di euh, daal di euh, cliquer ci lien boobu même chose ngeen wax euh, ñaata CD ngeen bëgg kii bi nag album bi cherul mu ngi jar 9 virgule 99 euros boo ko calculer ci kopparu Sénégal mu ngi nekk 6500 mais nag di nga def aussi commande wax di nga di nga fay pour livraison bi yaay xool ba xam da ngay fay pour ñu livrer ko sa kër wala fañ la nga koy livrer donc loolu kese la woon pour wax fans yi ne que suñu artiste li mu mënoon def na ko vraiment il s'est donné à fond def na li mu war a def def na liggéey bu mucc ayab donc nag fans du rek par exemple sa artiste euh, génnee dara nga toog. fans li nga xam ne mooy rôle mooy sa artiste su génnee album nga jënd ko wala su nekkee dafay jouer fenn nga daal di jënd ticket daal di koy jaayal ay ticketam wala tamit su génnee album nga jënd album bi jaayal ko ay albumam nañ def tamit ay points yoo xam ne après dinañ leen ko communiquer nañ monter équipe yoo xam ne ku bëgg tamit koo xam ne amul moyen jënd carte bi wala xamoo noo ko utiliser parce que du ñëpp ñoo jàng mun nga rapproché wu ci ñun après dinañ joxe numéro téléphone yi su ngeen ñëwee ci ñun ngeen jox ñu seen dinañ leen jëndal ci plateforme bi seen CD di leen wax ne que nag pare nañ un Faramareen un CD ñun ñoo wax a jàppale suñu artiste à ce que mu mën ñu indil disque d'or bi li mu waxoon def def na ko donc nag ñun fans yi nañu jënd te jaay album bi loolu lañ leen fi woowee woon di ñaan ñëpp jàmm après dinañ leen communiquer équipe yi ñuy def donc dañuy bàyyi Awa mooy sama présidente d'organisation mu sànni ci kàddu salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay donc comme ni ko mami expliqué rek man je me présente c'est Awa Mbaye présidente organisation nu ko waxee en même temps chargée de la communication Wally Family donc li waraloon woote bi c'est simple gis nañ ne que ça fait un bout de temps léegi ñoo ngi wax sur le CD bi album international booba léegi ñun suñu artiste loolu kese la ñu dese looloon parce que bégal nañu xeetu bégal bu ne wayal nañu façon woy bu nekk donc euh, CD international bi lañ doon xaar pour mu indil ñu disque door bi bon pour jënd ko li tax ñu woote ko parce que du ñëpp ñoo xam comment utiliser les plateformes du ñëpp ñoo mën a utiliser l'internet pour jënd carte bi donc c'est simple on a créé des liens lien bi daf ko épingler dans tous les pages dans tous les pages sur les réseaux sociaux de même sorte que soo duggee aussi sur Google soo defee précommande précommande album CD Wally Seck ay wanna be free dañ lay indil ñaari lien ñaari ñaari étape da ngay gis ci kaw ñu proposer le tiseur bi secondo da ngay gis ñu proposer le euh, précommande I wanna be free soo tapee ci I wanna be free boom soo duggee yow aura des instructions à suivre dinañ la wax ci peux acheter en panier yaay choisir un deux ba heure bu la neex nga mettre sa adresse ton numéro prénom après ñoom dinañ la defal facturation bi nga choisir aussi si da ngay fay livraison bi wala da ngay dugg su nag livraison gratuite am na aussi ñaari option donc pour ñu mën lii dinañ leen ko wax pour ñi nga xamante ne tam mënuñu suivre option boobu noonu comme ni ko man mami waxee dinañ monter ay équipe yoo xamante ne dinañ fa toog ay point pour wan nit ñi nan la ñuy jëndee album bi carte prépayée bii daf moo ngay jënd da nga koy jënd ay quinze mille quinze mille deux cent loolu leen fàtte wax quinze deux cent pour ñi nga xamante ne amuñu compte bancaire lii la ñuy jënd ñu recharger ko léegi lii soo ko xasee ba am tu peux directement si tu passes la commande léegi ñi am aussi carte bancaire carte visa soxlawuñu lii pour ceux qui ont des comptes bancaires soxlawuñu prépayé bi il peut acheter directement avec le compte bancaire suñuy dugg dañuy def seen numéro compte après ñu def seen numéro compte la ñuy def seulement ñu dugal commande ils vont tirer ça directement sur la banque euh, donc loolu la woon di leen remercier aussi si teewaay bi di wax ne que comme nu mu ko waxee un fromarin un CD amul ragal amul bàyyi waxuma la un faramaare un CD sax waaye faramaare bu nekk war nga mën a jënd xanaa cinq ndax du ndamu Wally Seck kese ndamu Sénégal la Wally suñu fierté la donc daf ñuy représenter au niveau international Wally tey yeggal na turu Sénégal foo xamante ne nit yi xamuñu fa woon sax donc c'est à nous de jouer donc li lii la woon di wax merci donc I wanna bi free un faramaare un CD 2023 en tant que présidente de l'association Wally Ballago Seck le Wally Family euh, dont le but est de porter notre artiste j'exhorte tous les membres d'utiliser leur carte Visa ou carte prépayée pour acheter l'album en ligne qui coûte 9,99 euros au sorti de cette rencontre je vais mettre en place des au sorti de cet album je vais en place des équipes qui seront à charge de montrer comment acheter l'album en ligne au besoin chers frères chères sœurs sénégalais D'ici et de la diaspora, nous ne devons pas manquer l'occasion d'offrir le disque d'or à notre chanteur Wali Le lien sur les plateformes de communication du chanteur, les liens sont disponibles sur les plateformes de communication du chanteur Wali Balagosek, Instagram, Facebook, euh, Snapchat. Cette open, de, cette open press est un moment d'échange, de sensibilisation. Notre artiste a fait son job. Il a donné son temps, son énergie, son talent et sa musique. C'est donc à nous de faire notre part en achetant massivement l'album. Nous visons le disque d'or et pour y arriver, nous devons jouer notre partition pour acheter et faire acheter cet album. L'artiste Wally Seck se sacrifie pour le meilleur de lui-même, donc nous devons faire pareil pour lui montrer notre amour et notre détermination. Je vous remercie. yéen a ma béréfin ba ma